feebar da leen sonal mhm. bokk na si nit ñi li ñuy laaj mooy ñi am fibrom mhm. te dégg na nu ko yàlla may ci wàllum fajum fibrom nga mhm. lan nga ñu mën a wax ci ci wàllu boobu noonu ak képp ko xamante ni seet si na la tey bu amee feebar boobu yàlla mën na dogal bu jaaree si yow mu saafara waaw xam nga alquran bàyyiwul dara te it dafa am benn fu may wax rek parenthèse muy mooy dafa am benn benn wëlëre amoon fibrome ba demoon hôpital ba médecin bi di ko danañ la opéré ko waxee ñu def ko analyser analyser ma ko waxee nag ma digal ko ne da ngay jël da ngay bu à sedd ndoxu zam-zam nga jàng ci juróom-ñaari fatiha loolu yomb na ñëpp mën nañ ko defee naa mu jàngee juróom-ñaari ci naan rendez-vous mu ci médecin bi ne ko lii mënta nekk yow analyse yaa ngi nii di la joxe ñu ngi la war mais fi mu toll nii la ma xooloon gisatuma waaw te loolu fatixa rek la kon ngeen jël ko yéen nga xam ne yéen a ko amee wala dégg ngeen ku ko am mu jëfandikoo ko ni ma ko waxee na bàyyi ba suuf sedd di ko dalee trois heures wala deux heures ñu ñaan yàlla ci barki fatixa yàlla dina ko dimbal incha allah sax